mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu santee suñu boroom tabaraka wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nuyóob lislaam bunt bi nga xam ne moom lañ ñu wax ne nan ci jëmale fàttalante bi muy maada yaani intimaai lil islaam maanaam sama askanu ci lislaam lan lay tekki lan lay firi wax gi ma wax ne man ci lislaam laa bokk muy bunt boo xam ne nag bu yaatu la boo xam ne moo ëmb dundu jullit bi lépp lépp loo xam ne jullit bi war na koo def rek loola lay tekki lépp loo xam ne jullit bi war na koo bàyyi loola lay tekki kon buñ ko tuddee loolu xanaa dañ say wax rek la nga xam ne moom lañ ca xam waxi tam la nga xam ne moom la waxtu yi mën a ëmb waaye loolu ku ko bëggoon a wax lépp ngay wax lépp loo xam ne jullit war na koo def wala jullit war na koo baax baax googu dafa ëmb loolu lépp kon nag ngeen bañ a séentu ne kon thème bi loolu ñu ko tuddee day dikkee noonu al islam nag moom mooy lan wa huwa al inqiyaadu taam lillahi taala bimtisaali awaamirihi wajtinaabi nawaahihi mooy wambatu gu mat sëkk jëm ci suñu boroom tabaraka wa taala ci topp ay ndigalam ci wattandiku ay teram wa ifraadihi bittaati wal ibaada wal iqtidaai bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wéetal suñu boroom tabaraka wa taala ci topp gi nga koy topp ak jaamu gi nga koy jaamu nga bañ ko ci boole ak leneen te topp googu nga koy topp nag ak jaamu gi nga koy jaamu nga royee ko ci ndaw li mu yónni woon muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yooyu su dajee da ngay daal di am kon baat bi ñuy tuddee al islam mooy al imaanu nga gëm suñu borom tabaraka wa taala wal mutaabaa ànd ak nag di roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ngëm googu ak lamu laaj te ñaari baati shahaadataani yi ëmb ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'islam boobu doon am ci loo xam ne dañ koy fas ci xol am ci loo xam ne dañ koy wax ci làmmiñ am ci loo xam ne dañ koy jëfi ci ay cër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa al imaanu bi tamanni walakin maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu alamal nee na ngëm nekkul rek ci di mébét naan ak a neexoon nangam ak a neexoon nangam waaye nee na day sax ci biir xol nee na jëf dëggal ko ci bit dam aadama bi lim sax ci biir xolam war naa dëggu ci ay cëram askanoo nag moom mooy lan al intimaau li cheyi wa huwa al intisaabu ilayhi moom mooy ngay wax ne yaa ngi féete ci nangam yaa nga ca bokk des na ci bokke nag ci mbir ci dono loo xam ne da nga koo donn fekk te say baay wala fekk te say maam nga donn ko ñu daal la cay askane wala yow nga di ca askanoo ndax ne ca la say baay ak say maam ca la ñu nekkoon loolu dana tax ñuy askane ni ci dara des na askanoo ci dara itam ci ñu yar la ca ñu yar la ca donte sax gëmuloo ko waaye ña la yoroon di la yar ca loola lañ doon tàggat ñoom ca lañ la doon tàggat te pouvoir bañ am ci yow tax na ñu doon la yar ca loola di la ca jëmale ba nga mujj ko miin mujj ko far nangu wala sax nangu woo ko waaye daal ma ngay ay màndargaam ma ngay feeñ ca yow loolu boobaa dana tax nit ki ñu koy askane ci nangam fekk loola ña ko yore woon ñoom ñoo ca nekk doon ko sax waaye nag nit ña mu nekkaloon ñoo nekk ca loola mu ne mu mel la def caa nekkaale wala sax mu far ca nekk des na askanoo ci dara itam nag ci def ko i'tinaaq mooy loo xam ne nag yow yaa ko gëmal sa bopp doonloo ko yaruñu la ci waaye yaa dem ci sam xel ak ci say gëstu ba gis ko mu doy la nga duggal ci sa bopp sa engagement bopp ñaar yu jëkkee moom des ko def ci yow bu mujj bii nag mooy bi nga xam ne moom yow yaa ko defal sa bopp kon ñett yi ñu wax yépp nit ki dana ko askanoo ci lislaam nit ki nag mooy seet ban moo ko ci boole ndax doona rek moo ko ci boole wala ay orientation yuñ ko def loola moo ko ci boole wala iqtinaa bu mu ci am muy doylu bu mu ci am ci gannaaw bu mu seetee dendale ba gis na lii moo dalum xelam ndax loolu moo ko ci boole xoolal na ci waaye bu mujj boobu itam par ci ñëw ci bi seet nga ko ba gis ne moo doy nga far ko doyloo wala dañ la ci doon yar ci loo xam ne du woon sa coobare waaye gannaaw ba sam xel ñëwee nga nat ba gis ne kat liñ la doon jëmale nga doon gàntoo ka nangu dem nga ba sam xel ñëw nga xam ne kat moo walaabal nga jëlal ko sa bopp léeg-léeg nag am koo xam ne am ca dono ga rek la yam am koo xam ne itam ca yar gañ ko ca yar rek la yam ki yar ci ki yam ci dono gi nga xam ne moom daf koo doonu rek kooka mooy lam mboolem lu mu sa donnaale woon du ko nangoo dindi saa bu demee ba gis ñu waxe ko neneen noo xam ne ci ay tegtal moo gën a wér waaye wuute na ak la mu doon noon danay day wax ne moom day continuer ci li mu doon noon koo xam ne sa diine noonu la xamal ne kon yow sa askanoo gi askanoog dono la askanoog dono rek la te boobu nag du doy su fekkente ne itam dañ la caa yaroon ay nit ñoo wax ne ca la ñu ne ñu boole la ak ñoom ñu yar la ca yaa xam lu la booleeg ñoom waaye itam na nga dem ba lu bokkul ak lañ la ca wanoon ñoom dootoo ko ci nangu luñ la ci wanoon itam buñ la laa njuumte la doon nangu ne njuumte la kon yow itam ba tey sag askanoo ci lislaam askanoo coobare yi ay nit ña la ca doon yar ca nga askanoo ba léegi su fekkee ixtinaax na nag mooy ixtinaax nga ci amal sa bopp boo xam ne tegoon nga ko ci ay tegtal yu wóor mooy nga doon koo xam ne yow lislaam bi rek ngay seet yow lu ñu ne moo ca wér rek yow foofa ngay daal di jëm li la soxal daal mooy lii lislaam la te wér na booba askanoo nag mooy askano bi nga xam ne moom moo wér kon ñetti askano yooyu kenn ku ci nekk na ci natt boppam ba xam ban la ci yor bu jëkk bi nga xam ne dono la rek suñu boroom tabaraka wa taala ngàññi na ko nga xam ne sa diine moom tegoo ko ci lu ngay lii laa fekkoon rek mi ngi naan wa ida qiila lahum taalaw wa ida qiila lahum taalaw ñoo xam ne boo leen ne kaay leen fu ngeen jëm ila ma anzala allahu wa ila rasul li yàlla wàcce ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñëw leen ci luy doon seen tontu qaalu xasbuna maa wajadna alayhi abaana ñu ne ñun day doy nanu li ñu fekkoon suñuy baay ak suñuy maam nga kon ñooña lañ leen fekk moom nëttatuñ ca ndax dëppoo na ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ndax dëppoo na ak alquran seenu lay te loola daal mooy diw defoon na ko sun baay diw moom la doon def wala sun maam diw moom la doon def loola mooy tey seenu lay ca loola buñ la ko atee andi rek mu sax ne kooku defoon na ko ñoom jeex na asbuna maa wajadna alayhi abaana koo xam ne nag nga sa diine nag mooy loolu xamal ne tax askanu ci lislaam du askanu gu wér ñaareel bi itam ci ci askanoo ci ay nit ñu ko ci doon teg rek nit ña la ca doon teg su fekkente ne lu ñu la ca wanul woon duutoon nangu mu bokk ca lu ñu la ca wanoon duutoon nangu mu génn ca doy na la ci ne rek nga ne sëriñ baa ko waxoon wala sabab jàngalekat a ko waxoon wala ma nga ca téeréem bu ñu waxee sa firnde nga daal di ma nga ca téeréem sañ jiw loola moom daal lay doon sa tegtalukaay ba nga xam ne duutoo jàll bu fekkee foofu nga yem itam sag askanu dugg wér ndax kooka dëkk la da doon góorgóorlu xëy na di la ca teg mais suñ borom joxu ko woon sa weer ci ne lu mu wax rek noonu la kooku moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko yàlla jox te ginnaaw bu nga ko assuré ba noppi ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuxa te la ko assuré ne kii day du waxe bànneex lu mu wax rek man yàlla maa ko ko wax yi moo tax kon wëlbatiku ne kon wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu waaw gannaaw moom laa yantiqu anil hawa du waxe bànneex te ku réer bànneex moo la réeral suñ borom ne comme man maa leen assuré du waxe bànneex rek kon lu mu leen andil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen keneen ku dul moom nag lam wax mooy alladina yastamicuuna alqawla xawlu boobu moom wax pour yonent bi mi ngi ci biir wax yonent bi moom lépp rafet mu ne fa yattabicuuna ahsana ku mu mën a doon da ngay déglu waxam topp la ca rafet la ca rafet mooy lan mooy la dëppoog alquran ahsanahu lan mooy ahsana mooy alquran allahu nazala ahsana alxadis kitaaban mutasabiha alquran mooy ahsana alxadis lu rafet lu nekk rek daa dëppoog alquran يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب suñu borom nee na ñooñu nga xam ne dañuy segg boo leen waxee danañ déglu waaye nag suñu noppee dañ koy seet la ca dëppoog alquranul karim su ko defee ñu topp loola la ca dëppoowul ak moom wala mënuñoo xam nu mu dëppoog moom moo xam dëppoo naag moom waaye ñoom mënuñu koo xam wax nga ko noo xam ne daal rabbe ko noo xam ne daal moo mënta leer ci seeni bopp ne dëppoo nag alquran loola kon boobaa loola engagé wu leen dañ ko fay bàyyi ñi mel noonu ñooñu la suñu borom ne ulaika alladina hadahumullah ñooñu la yàlla gindi wa ulaika hum ulul albaab nee na ñooñu ñooy borom xel yi kon boobu rek itam doyut ba ca des nag mooy bi nga xam ne mooy bi nga fasal sa bopp boobu itam léeg-léeg mu nekk njuumte ndax mën nga koo fas fasaare ci sa bànneexi bopp yow la ne moom ay bànneexi ay ndóol léeg-léeg nag yaa ci dugal sa bopp kenn puus la ci dolloo ko yaruñu la ci yow daal yaa xoolal sa bopp ba dugg ci waaye nga dugalaale ci say bànneex kooku itam bu boobaa du wér seet ba nga xam ne moo la neex rek moo la gën a arrangé nga jëlee noo la diine booba itam du tax nag mu baax waaye askanu ci lislaam gi nga xam ne moo wér daal mooy askanu gi nga xam ne da nga koo teg ci ay brahim muy ay preuve ay firnde yu leer yoo xam ne yu xel nangu la ba am ci ak doylu gu mat sëkk su ko defee nag nga daal di koy jël def ko muy sa diine boobu la suñu borom tabaraka wa taala santaane moo tax mu ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna alsam'a walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masula bul dugg di jël wala ngay gëm wala ngay jëfe loo amul ilm ilm la wax te ilmu dañ ne huwa al ictiqaadu al jaasimu al mutaabiqu lil waaqi hada huwa al ilm mooy pas-pas bu dëgër bu amul sikki sàkka te la nga pas dëppoog la am ñaar yooyu dafa mu ànd mbir mi su amee te nga cay déng-déng donte lu am la yow ci yow tuddul ilm mbir mi soo ko fasee boobu dëgër dëgër ca lu këng waaye bokkul ak la am ba tey tuddul ilm kon ñaari dëppaloo yi day am yow da nga ciy am engagement bu wér gëm ko amoo ci looy sikki sàkka te loolee itam nag moo am al ictiqaad al jazim al mutaabiqu lil waaqi loola boobaa mooy tudd ilm suñ borom nag ne loo amul ñaar yooyu bul ci dugg xam nga gëm nit lool gëm ne wàlli yu la gëm ne cër bu rëy ci yàlla la am bu ma newul duggal kii sama dugg mais fekk na la ngay wax loolu amul ci moom boobaa loolu tuddul ilm mbir mi moom amee na nii waaye yow gëmee woo ko noonu parce que loolu moo daloon naafiq yi wala naafiq yi bi ñu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom di ko nekk ida jaaka al munafiquun qaalu nashhadu innaka la rasulullah hada huwa al waaqi li ñu wax mooy li am waaye ñoom gëmuñu ko suñ borom ne wallahu yaalamu innaka la rasuluhu waaye wallahu yashhadu inna al munafiqina la kaadibun parce que kàddu gi ñu wax ne moom la ñëpp wax mais ñoom la kaadiboon ñoom lan moo leen manqué mooy ictiqaadul jaasim bi moom lañ amul mais li ñu wax moom lu am la innaka la rasulullah kay lu dëgg la ci teewul suñ borom ne ñoom la kaasiboon waxuñu dëgg kon li ñu wax lu am la waaye fasuñu ko naka noonu itam nag soo ko fasoon ci amut soo ko fasoon ci amut it la nga tudd yor tuddul ilm ilm boobu nag la suñu borom ne bul dugg ci mel ni mbir te demoo ba am ko ci ne nag jox naa la ay jumtukaay yoo ko mën a xamee jox naa lay nopp del déglu bu baax jox naa lay bët del xool bu baax li ngay xool jox naa la am xel del xalaat wàcceel la itam nag ab téere koo xam ne moom dëgg rek a ci nekk dëgg rek a ci nekk walladina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alxaqu min rabbihim wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal borom nee na wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal moom alquran nee na ci dëgg laa ko wàcce te itam ci dëgg la wàcc xam nga mbir léeg-léeg nga yebal ko ci dëgg mu demee neneen lu bokkal na nga ko yebale woon dana nga yebal nit yabalin woo xam ne yow dëgg ci nga ko yebal doxloo ci ko mission bu walaabal bu baax mu dox mu dem dox beneen mission moo tax mu ne wabil xaqi ansalnaahu alquran bi ma koy yebal ci dëgg laa ko yebale waaye bi mu ñëwee dëgg la doxee wabil xaqi nazar benn déviation amul ci diggante bi kon alquran jooju mooy li nga xam ne moom ngay jëfe niite ko sam xel pour nag bala ngaa dugg ci mel mbir nga niite ko xel moomu nga xam ne alquran moo koy fonctionné mooy énergie bi koy doxal moom xel mi alquran moo koy doxal su ko defee foo ko nit rek teg sa bànneex fële da ngay daal di gis ne tey dëgg fasaab parce que nag dëgg it mënoo koo xam te jaaroo ko ci jumtukaay bi nga ko mën a xamee bi nga ko mën a xamee mooy am xel waaye xel mu dëgg di doxal ndax xel à part rek la à part rek la day am luy lu koy doxal mu doog a mën a dox faw nag mu dox bu ko dëgg doxalul bànneex moo koy doxal alhawa suñ borom ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa in lam yastajibu laka yow mi andi dëgg bu la nit ñi wuyuwul faalam annama yattabiuna ahwaahum xamal ne kon seen i bànneex lañ topp seetatuñ dëgg parce que dëgg moom ku la nangu la wuyu bu lu mu wër wër wër du ko gis parce que foofu rek wa amanu bima nusila ala muhammad ma nusila ala muhammad wa huwa alxaq min rabbi li wàcc ci muhammad dong dong moo fiy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun benn la ci dëgg yi kon sax yeneen dëgg mën naa am feneen waaye daf ne moom rek mooy dëgg li wàcc ci moom kon nag koowoo nanguwulaa wuyu seetatul dëgg ba neex lay seet lu ko neex lay seet fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwaahum wa man adallu mimman ittabaa hawaahu bi gayri hudan min allah amul ku gën a sànku ku topp bannee xam bàyyi fi njubug suñu borom tabaraka wa taala kooku day sànku kon nag askanu gi nit ki war a askanu ci lislaam dafa war a tegu ci al istidlaal qabla al i'tiqaad da ngaa war a am tegtal yu leer doog koo fas doog koo gëm tegtal yu leer ba sa xel dal ci boo demee ba mu doon dono itam na nga ko wéralaat fekkente ne dono nga ci nekke woon comme nun ñi ñëpp dañoo judd rek fekk ay way juri julit ñu daal di askanoo ne ay julit lanu waaye loolu rek doyut loolu rek doy suñ ngëm boobu ak suñ lislaam boobu dañuy war a ñëw gaaral ko ci alquranul karim gaaral ko ci natt ko ci fekkee yàlla baaxee na nga mën a jàng alquran jàngal melo yi mi ngi ci biir yaa ayuha alladina amanu yi suñ borom di wax yéen ñi gëm yàlla benn su ko waxee day digle wala lay tere nga xool sa bopp foofu inna alladina kafaroo yi itam mi ngi ci biir yéen ñi nga xam ne ngeen weddi yàlla nga xool melokaan yam wax ne noonu la ñu mel nga xool ba xam yaa ngi jëm nit soo àggee ci inna alladina amano yi mucc ci inna alladina kafaroo yi su ko defee kon nga daal di xam ne kat yow sa askanu gi ngay askanu ci lislaam lu wér la waaye luñ la ci jur jur ak loo ci bokk bokkul te am melo inna alladina kafaroo yu ne ci yow ak melo inna alladina amano yu nekkul ci yow kon xamal ne kat sa askanu tur rek la waaye du askanu ga nga xam ne moom moo wér ci biir lislam su fekkente ne mënoo koo jàng itam nga dem laaj ña ko jàng ngay déglu jotaayu xam-xam ya lañ ñu wax ne mooy ay melokaani jullit kenn amul ngant suñ borom nee na fas alu ahla zikri in kuntum la taalamuun su ngeen xamul dem leen laaji ahlu zikr te mooy ñiy jàng alquranul karim di jàng sunnat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen dem laaj leen su ñu leen waxee nag ngeen dégg te lu juyoog la ngeen donnoon wala ngeen dégg te lu juyoog lañ leen yare woon wala ngeen dégg te lu juyoog milieu ba ngeen di dundee ah loola nag la leen daal di war ta saasa mooy daal di bàyyi loola daal di fekk te lañ leen wax ne mooy ak njub su fekkente nag yow mën a goo loolu nga xam ne loo dégg ne wér na rek ta saasa nga daal di koy jëfee lu mooy da nga naan waaye nag nangam giñ ci fekkoon wala nangam giñ ma yare woon ba ma juddoo ba léegi samay maam ci la ñu faatu samay bàyyi ci la ñu faatu ma bëgg a xëy xëy bàyyi ko loolu day di ci yow bu boobaa kon yow na nga yëg ne islaamu aada nga yor waaye yoroo lislaam bu wér bi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala soxla ci jàmm parce que lislaam du koy màggat bañ naan la dañ koy copier ci ñi nga fi fekkoon kenn ku nekk dañoo bëgg nga am ci sa originalu bopp boo xam ne ca cosaan la la jóge parce que lu ñuy donnante di ko tuxalante bu dee ci mbiri àdduna yi sax bu yàggee day mujj duutu mel na mu meloon fiir ba duutu bokk ak bu mujj ba léegi sax fii ñu naan la bii ancien modèle la ancien modèle yu jëkk yi bokkuñu ak nouveau modèle yi léegi doomu aadama yi def rek sax ancien lañ bokk ak nouveau yi bii dana yokkoon soo bëggee yoruloo ancien ba lu may da nga koy jële ci ñi nga xam ne ñoom itam moo demee ba ñu yoroon du nouveau ba du modèle bu ancien ba su ko defee kon luñ ko gën a roy rek di ko gën a copier dafay gën di feebar moo tax suñu borom tabaraka wa taala dafa bëgg kenn ku nekk sa diine nga jële ko ci téeréem bi nga xam ne moom assuré na ko mi ngi ci téere bi nga xam ne ci la saxaaba yi jële woon seen dal ci diine taabi'oon yi jële woon ko ci machine boobu ko génne woon ba léegi machine baa ngi ci machine boobu lañ bëgg nga déposé ci sa këyit mu génneel la duutu mel na meloon moo tax suñu borom tabaraka wa taala garanti téere bi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun ba noppi ne fasalu ahla zikri nag gis nga ko inna nahnu nazzalna zikr zikr maa ko fi garde mooy alquran dem leen laaji fasalu ahla zikr ñe yore appareil ba rek di ca liggéey rek dem leen laaji leen ko in kuntum la taalamun soo demee rek ñu génneel la l'islam bu wér bu mel ne bi saxaabatul kiram yoroon yaa xam nag yow da nga ko mën a appliqué nañ ko doon appliqué mais mën naa leere na mu leere woon foofa kon boobu askanoo ci l'islam mooy askanoo ju wér kenn du ko mën a am nag ci jëfandikoo woon ñaar yii bañ a rey sam xel il faut nga nangu ne yow mi nit nga da ngaa amum xel nit nga comme nit ñëpp yàlla da laa bind jox la mu xel doo jàpp ne da ngaa bokk ci deuxième choix yi nit ñi ñi nga xam ne ñoom daal dañu leen di xalaatal rek di leen jox ñu jàpp ne ñoom daal waruñoo mën a xalaat am na ñoo xam ne foofu dañ classé seen bopp te fekk na ci nite gi moom nit ñi moom ñun ñëpp ci tolloo ay nit lañu ni ñu bokk lay cër yi naka noonu ni la la yàlla joxan xel itam ni nga mën a bokkee itam ci ñuy jiitu ca kanam amul ñoo xam ne yàlla dana rek ñoom fawu kanaaw la ñuy def déedéet suñu borom def laa waajal jox la am xel jox lay bët jox lay nopp ni mu ko waxee jox lay cër yëpp wàcc ab téeréem nga man koo jàng ni ko ñëpp war a mën a jànge néew rek ñeen na ko war a jàng dafa ne wala xad yassarna al qur'ana li zikri fa hal min mudakkir ana kan moo bëgg a jàng waaw fa hal neel ci laa rek neel bëgg naa yàlla daf ne ku bëgg neel bëgg naa waaw néew rek na ko ñii doo ko jàng waaye ñëpp la ko may wala xad yassarna al qur'ana li zikri nee na alquran maa ko yombal te nag da koo yombal da ko subventionné yàlla dafa subventionné alquran da ko yombal parce que li ñu mën a mokkal ci alquran kenn mënu ko mokkal ci leneen alquran même xadis kenn mënu cee mokkal mokkal mokkal lu toll alquran tëyee ko noonu te duutu la rëcc moo lay xam ne am na lu ci yàlla dugal xale bu mu amul dix ans man koo mokkal lépp yàlla moo ko yombal wala xam ne yestar naa alqurana li zikr koo faxal min mu dëkk kooku kon suñu borom tabaraka wa taala yombal na ko jox la itam nag am xel te lay xamal ne xel mi jox na la ko comme xel xel mi mu jox nit ñi ci wàllu adduna bi boo ko ci jëmee da ngay dem ba lépp loo xam ne nit ñi am nañ ko ci xeeti teraanga nga fexe ba am ko te loolu sax kenn ku rek loolu la programme fi mu nekk lépp loo xam ne gis nit ñi am ko ci xeeti teraanga rek lu ne man ah man de lii man doyewu ma ko dara man waruma yeewuma yi kër wala yeewuma yi oto man bokkuma ci gars yi kawe rek ñoo ko yeewoo déedéet lenn lu ci nekk jàpp na da ko war a am amma bu ñu waxee ci diine ji rek mu ne ah man de man de taalibe laa rek moom gars yi nga xam ne daal ñooy doomi soxna yi ñooy jàngkat yi ñooy ñu baax ñi daal yooyu ñoom suñ ko xamee rek mu doy te suñ borom dana woon kenn ku nekk na nga nekk candidat wu nekk imaamul muttaqin waxul sax nga bokk ci ñuy ragal yàlla yi waaye nekkal candidat wu fas yéene bokk ci ilimaani ñuy ragal yàlla julit foofu lay foofu lay daw jëm rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama suñ borom nee na sama jaam ñu ma gëm dañuy ñaan lii te looy ñaan mooy da ngaa daw jëm ci waj'alna yàlla yàlla nga nu def lilmuttaqina ñu ragal yàlla imaman muy seen iliman ok yow doo def ca gannaaw imam fas yéene la doon imaamul muttaqin waxuñu imaamul mujrimin de mais imaamul muttaqin waaw muttaqin ya ña ragal yàlla nga doon seen ilimaan julit bu ne foofu nga war a daw jëm suñ borom wax loolu ba noppi nag ne saabiqoo njëkkante leen nag yàlla dafa joxe départ course saabiqoo te mu ne saariqoo saabiqoo fuñ course jëm ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ard suñu borom ne te saabiqoo jooju ñëpp ci tab bi nag course bi ñëpp la ko yàlla jox doomu aadama yëpp naanukaay ba mooy fan mooy maxfira min rabbikum maxfira mooy njëgal ga de muy njëgal te nag bay jaamu yàlla ak nirunut ku baax lépp fekkeegul ne jëgal nañ la parce que njëgal gi ca loxo la yàlla la nekk wa man yaxfiru zunuba illa allah waaw ab yonent du jéggale ab sëriñ du jéggale ab borom xam-xam mënta jéggale yàlla ci boppam moom rek mooy jéggale wa man yaxfiru zunuba illa allahu te nag yàlla mu mënoo jékki-jékki ne yàlla def na nakam yàlla jéggal na déw déedéet man ngaa rafet njort daal moo tax kon course bi fa muy téere ba léegi téeregul même ña faatu pour ñun téeregul parce que xamuñu yàlla jéggal na leenam def suñu demee yow ma xiyam daal ba ñu gis ne texe nañu booba ku tabbi ca biir texe ga yow yaa egg seen naanu kaay saabiqu ilaa ilaa yi comme daanee la maxfira néewul sax rek ñëwaan néewul ngeen am ngërëm wala ngeen am leneen waaye maxfira ngeen dem ba am njéggalu suñu borom tabaraka wa taala course boobu nag kenn ku ci nekk da ngay fas yéene bokk ci ña nga xam ne yaa jiitu jullit bi foofu la war a teg boppam l'islam nag suñu borom tabaraka wa taala daf koo jàpp ndal te itam kenn ku ne mën nga ci am accès direct parce que du mbir mu kenn moom ku dul suñu borom tabaraka wa taala inna diina inda allahi al islam هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله kon benn famille moomuñu ko wenn xeet moomuñu ko ba bala caa kenn dugg il faut nga jaar ci seeni formalité yu ñu lay defloo wala seeni sart yu ñu lay jox wala seeni ndigal lu ñu la koy jox l'islam accès direct la accès direct la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek mooy ki ñu koy jaare ci moom te moom itam lam ta leeral lépp leeral na ko bàyyi ko fi loolu itam il faut nit ki jàppe ne l'islam noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam bi mu doon jàngale l'islam la boo xam ne bu doom aadama yépp mën a dund la ci lu dul ànd ak benn jafe-jafe
ci lu dul ànd ak itam bala nga cee nekk il faut nga nekk surga yi ay gaañ islam boo xam ne bala nga nekkub julit il faut daal nga wàcce sa honneur sa dignité bi nga yoroon wàcc nekk ay surga bokk na ci li gën a tardé l'islam ak doxam ci barab yi
bu ñuy wax yoon wi jëm àjjana ak naka la nit ki def ba mën caa jaar dafa xam ne rek mooy nga gëm yàlla ngëm goo xam ne gu wér la ba noppi teg ca di jëf jëf yi nga xam ne mooy jëf yi mu gërëm loolu rek la amul il faut nga xam ma sàmba wala il faut nga xam ma demba inna alladina amanu wa amilu salihat kaanat lahum jannatu lfirdawsi nusula xaalidina fiha laa yabxuuna anha xiwala suñ borom nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf-jëf du baax yaa xam foo mën a xamee loolu waaye daal yaa ngi ci loolu am nga iman am nga amalu saalex yaa ngi ci kaw yoon wi koo dajal ci kaw yoon wi rek ngeen ànd di dimbalante mu ne ñooñu de kaanat lahum jannatu lfirdawsi nusula jannaatu firdaws mooy seen wàccukaay bu ëllëgee dana wax ne inna alladina amanu wa amilu salihat sa yajcalu lahum arrahmanu wudda ñi nga xam ne itam gëm nañu yàlla tey jëf li yàlla santaane ñu koy jëfee ni ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon jëfe jàngalee ko noona ñooñu ñu ngi ci kaw yomb nee na suñu borom dana leen defal ak cofeel mu dal wax ne wa man yatihi muminan qad amila salihat fa ulaika lahum darajatu al ula jannatu adnin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dalika jazaau man tazakka suru taha suñu borom nee ne ku dikkal yàlla fekk nga gëm doon jëf-jëf ju baax nee na ñooñee day ku critères yooyu daje ci yow nee na am nga ca daraja yu kawee fa ulaika lahum darajatu al ula daraja yu kawee mooy lan mu ne jannatun tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha mu ne nag wa dalika jazaau man tasakka nee na loolu laay faye ñi nga xam ne yaroon nañu seen bakkan ba sellal mooy xad aslaha man takahaaja ña ko def li muy seen fay wa dalika jazaau man tasakka mu del wax ne a yaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin nusaariu lahum fi lxayrat xam nga yàlla bi mu ne course leen saabiqu ci Ali Imran mu ne saariu ñu bari dañoo defe ne course bi ci arrivé mooy ci fexe ba bari alal même su bari alal sax ci diine day bëgg am place ci diine moom ci biir diine la nekkoon di wut alal di ko dajale di ko dajale ba am ko nag bari la na ko bu ñëwee ci biir diine day bëgg a occupé place ya nga xam ne moo gën a kawee ci diine bu dee julli moo war a dox bu dee kàddu gi moo ko war a yor bu dee ndigal li moom la ñu war a laaj ndax daal comme daraja la léegi borom alal la wala borom mbooloo mu bari la moo xam lu mu naqarcee ba am mbooloom moo xam da leen a réeral jàpp ci ni boppam mbooloo ma topp ko waaye comme bari na mbooloo rek bay yaa ci li baa ngi ñëw de topp leen waaw su ñëwee fa gën a tawee moo fay toog wax ñu ne la déglul ci li fay wax kilifa gi lu ko def kilifa mbooloo la mu bari la am kee lu ko def kilifa alal la am suñ borom ne a yaxsabuuna da ngeen a yaakaar ne annama numidduhum bihi min maalin li ma leen jox ci alal wa banina ak i doom ndax mbooloo moom say doom lay tàmbalee moom ndax mbooloo mën nañoo demee ñëpp ne say doom a koy def moo tax bu ñu lay limal mbooloo say doom la ñuy tàmbalee waaw moo tax mu ne wa banin mu ne da ngeen a jàpp ne mbooloo moom nu saare onahum fil xayraat dana tax ngeen raw nit ñi ci lu baax mu ne bal laa yasuruun xamu leen lu xew bari mbooloo ak bari alal fii ci Sénégal la kookoo fii kilifa waaw ko fi bari mbooloo wala mu bari alal daal ñu ne kilifa la kilifa la mais kooku du kilifa ci diine kilifa diine mooy li muy bëgg a wax inna alladina hum min xasiyati rabbihim musfiquun walladina hum bi ayaati rabbihim yuminuun walladina hum bi rabbihim laa yusrikuun walladina yuutuuna maa aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raajicuun ulaika yusaaricuuna fi lxayraat wa hum laha saabiquun ulaika ñooñu ñu waraw suñ borom nee na ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi tiit ngir ragal seen borom xam nga ñooñu duñ bàkku kon ah ku tiit du bàkku inna alladina hum min xasiyati rabbihim musfiqun koo dégg muy bàkku naan lii laa am wala fii laa toll kooku ragalul suñu borom tabaraka wa taala walladina hum bi ayati rabbihim yuminuun nee na ñi nga xam ne dañoo gëm aayay suñu borom tabaraka wa taala fuñ leen ne lii la alquran wax ñu daal di taxaw pasaas ko waaye nag wallasina hum bi rabbihim laa yusrikuun ñi nga xam ne itam nag yàlla duñ ko bokkaale dara duñ ko bokkaale dara wallasina yuutuuna maa aataw wa xuluubuhum wajila nee na ña nga xam ne dañuy def la ñu def ba noppi ci te def na aysa laajoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aaya boobu ne ko waaw xanaa ñooñu kay mooy ña sàcc wala ñu rëy nit ñoo ko def ba noppi ci ci mu ne ko déedéet ña suñu borom def mooy ñi julli koor asaka ba noppi ñu tiit xamuñu liñ def yàlla nangu na ko mbir mu ne ko ñooñu la yàlla wax wala si ne yóotuuna maa ataw ba noppi wa xuluubuhum wajilatun ndax yooyu boo ko defee ba noppi tam fiix bu ñu wax sawar ak yeneen nga nag ngay xool gaa yi ah kooku xuróor la kooku waru day dal di ñëw waaw mais buñ ko def yow tiital yow waaw isa sukira allahu wajilat qulubuhum buñ ne yàlla rek nga nga tiit wa isa tulla alayhim ayatuna xarroo sujjatan wa bukiya gaa yi suñ borom takk ne boo ma saa jàng alxuraan rek dañuy daanu fi suuf si jub di jooy te gaa yu kawe lañ suñ borom ne ulaika alladina anama allahu alayhim min annabiyin min suriyati aadama wa min man xamalna maa nuux wa min suriyati ibrahim wa israil وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال برم درجة يكاوي يلا تقدر ينبغي أولئك الذين أنعم الله عليهم يلا للخير يفهم للخير بنوك من سورية آدم وممن حملنا مع نوح ومن سورية إبراهيم من يونو إذا تتلى عليهم آيات الرحمن تولي جنجل القرآن ندى لسجود دار لجوي kon ñooñu wóoruwuñu seen jëf moo tax suñ borom ne wala ci la yóotoona maa aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun mu ne ulaik ulaik ñooñu yusaariuuna fi lxayrat ñooñu ñoo daw jëm ci lu baax te ku melul ne ñoom ñoo la cay ray wo ñoo la cay raw wahum laha saabiquun wahum laha saabiquun kon nag mbir yi foofu la nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diine ji mu daan jàngale doonul woon diine ji muy takk ci nit rek même moom li nga sëq moom mooy mu jàngal la ko mais bu la ko xasee jàngal ba mu leer foo ko mën a dundee ji baax na waaye dañ ne il faut moom booy wut réew ji dañ la fi yeew wutal la fi gétt boo xam ne foo mën a wari ci ngay dellu si waat loolu mooy condition yu doog laa jox diine loolu nag du diine ji nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala waaye parce que day mel ne ñooñu dañ koo moom parce que jàngal ko nit ki dañu taxul nga am autorité ci moom ne yaa ko moom ne yaa ko moom léegi fu mu war a nekk ci yow lay déglu lu muy war a def daf laa war a tàggu lu muy war a def lu nekk war nga koy ci lan ci maa ko jàngal bi nekk jàngal nga ko ko sax nekk jàngal nga ko ko même boo ko jàngaloon fere bi taxul nga moomee ko noonu parce que muuma ko dañ ko yoroon rek jottali ko loolu il faut ñu xamee ko ci diine ji nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi woon ak ñi nga xam ne ñun moom la ñu miin ay nit def ko seen ndono moomale ko seen bopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci addis boobu nga xam ne moom la siiw lool di addis jibril mooy bi jibril ñëwee yor melow doomu aadama di jàngal nit ñi diine te di ko laaj laaj yam ko doon laaj laaj ko iman laaj ko islam la ko njëkk a laaj mu ne ko an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tasuma ramadan wa tahujju al bayt in istatata ilayhi sabila boo gisee ñuy jiital l'islam l'islam daa gën a yomb iman l'islam dafa gën a yomb iman kullu muminin muslim walakin laysa kullu muslimin bi mumin ku gëm yàlla ku nekk rek muslim la jullit la waaye nag du ku ne muslim laa ku nekk nag gëm na yàlla si borom wax na ko qaalat al arabu amanna qul lam tuminu walakin xoolo aslamna islam moom mooy nangu nangu xam nga mën ngaa nangu ci mbir te fekk la gëmuloo ko buñ la dégg nga ñëw julli si nangu nga buñ ne wóor leen nga war nangu nga buñ ne joxe leen asaka nga joxe nangu nga buñ ne aji leen màgg nga dem lool ak nangu la mais nag est ce que nag ànd na ngëm ci gëm li ngay def ndax da nga koo nangu ngir ragal dara wala da nga koo nangu ngir bëgg dara yooyu yëpp mën na ci am parce que naafiq yi dañuy def lu mel noonu te suñ borom nee na gëmuñu wa maa hum bi muminin wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axir wa maa hum bi muminin mu ne ko kon l'islam mooy nga seede rek ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul suñu borom tabaraka wa taala doone rek amul benn buur bu ñuy jaamu buur yi ñuy jaamu moom bari na mais baatul ci dëgg bi nag moo koy tàqale amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul suñu borom tabaraka wa taala nga gëm ne itam ndaw li mu yónni nga xam ne lu ñuy xam ci diine ci moom lañ ko war a xamee kooku mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawal julli joxe asaka woor weer koor ak mag mu ne ko loolu mooy islam mu laaj ko lan mooy iman mu ne ko an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa tumina bil qadari xayrihi wa sharrih mooy da ngay gëm yàlla gëm yu malaakaam gëm téere yi gëm yonent yi gëm bis penc gëm ab dogal moo xam bu neex bala wala bu naqari ba mu ne ko lan mooy ihsaan mu ne ko an taabud allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ihsaan te nag mooy daraja bi ci gën a kawe mooy sellal mooy nga jaamu yàlla mel na yaa ngi koy gis foo toll di def muraaxabatullah di fugloonteeg yàlla nekk sa kilifa rek ci àdduna kilifa gu la kilifa rek ci àdduna boo doon liggéey mu taxaw da ngay fonk liggéey ba lool kenn du sigi kenn ku nekk di góorgóorlu te kooka yoralu la dara même lay jaare ci moom di ñëw ci yow yàlla la ko yónnee jaare la ko ci moom boo ko jógee woon it yàlla jaare la ko ci keneen kon nag boo dee fukk loon teeg suñu borom tabaraka wa taala loolu mu ne ko loolu mooy ihsan ñett yi mooy maratibu diin al islam mooy nangu nangu gi nag mooy andi iman bi iman bi mooy andi ihsan bi moo tax foo fekk muhsin mu'min la muslim la foo fekk mu'min boole na ci nekk muslim foo fekk muslim nag mën naa bañ a nekk mu'min mën naa bañ a nekk muhsin ñetti daraja yi moom la suñu borom tabaraka wa taala di misaal ci alquran suratu ibrahim daraba allahu masalan kalimatan tayibatan ka shajaratin tayiba asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla xiinin bi ismi rabbiha wa yadribu allahu al amthala linnas laallahum yatadakkaruun suñ borom nee na julit bu mat nee na day mel na garab garab reen ya day dëgër mooy julit bu mat yi ngëm ga day dëgër garab banqaas ya dafa war a gudd te sëkk julit bu mat itam comportement bitteem ay jaamu yàllaam dafa war a wér te dëgër garab meññatam dafa war a neex julit bu mat itam ay jikkoom dafa war a rafet mooy meññat bi ñett yooyu ñoo tolloo reeni garab gi mooy pas-pas bi xobi garab yi mooy jaamu yàlla yi meññatam garab yi mooy jikko yi dina garab su dajalee ñett yii baax na ci gën a am solo nag doom yi xam ngeen ne garab suñ nee garab ga meññ na rek li muy tekki mooy xob ya dëll na garab guy bëgg a dee dalu da meññ buñ nee meññ na it li muy tekki mooy reen ya dëgër na garab boo xam ne reen yaa ngi bëgg a guddi ko ca suuf yi dalu da meññ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàllay tàgg moom mi matal ñett yooyu ci meññal mi rek la ko tàgg dana ko rek yaa neex meññat wa innaka la ala xuluqin azim xam garab bu ñu laal garab gaa neex meññat doo fa ne man mbaa reen ya dëgër na ah bu ne bu reen ya dëgër woon dana meññ wala nga naan mbaa xob ya sëq na bu bu xob ya roosoon ba ngoo koomu dana tala meññ kon bu ñu ne garab gi meññ na rek moo réusi na lépp waaw kon bu ñu ne diw de moxsin la moo tax ngi ci yàlla naan wallahu yuhibbul muxsinin gis nga bu ne yuhibbul muxsinin muminina nga ca biir muslimina nga ca biir daa dem ba ca mujj muy muxsinin ba rek mu génn inna allaha yuhibbu almuhsinin yuhibbu almuhsinin kon noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee lislaam ci sempal jaare ci jibril mu ñëw leeral ko saxaaba yi jàngale ko seen kanam bi mu demee mu ne fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum kon moo lay xamal ne mbooleem lii diine lépp a ngi ci biir loolu mu wax ana sunu maalik mi ngi nett ne nee na benn bis ñu toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir jàkka ji nee na benn waay daal di war gëleemam ñëw ba egg si daal di yëkkal gëleemam daal di ñëw ne kan ci yéen mooy Muhammad da fekk yonent bi nekk ci seen biir ne ñu ne ko waaju leeru yaram bii day te sukkandiku nii sóonu mooy Muhammad mu daal ne ko ibnu abdallah yow doomi doomi abdul mutalib ibnu abdul mutalib abdul mutalib mooy maamam dañu kii mën na ko askane ci maamam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wuyu naa la mu ne ko day dama lay bëgg a laaj te nag laaj yi dana metti bul ma mere nag laaj yu xar yu seer laa lay laaj waaye nag bul bul ci mer yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laajal li nga bëgg a laaj mu daal ne ko maa ngi lay laaj ci yàlla mi nga xam ne mooy sa borom di borom ñi la fi jiitu woon waaw ndax dëgg dëgg dëgg dëgg nag yàlla moo la yónni ci nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw mu ne ko waaw maa ngi lay laajaat ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala waaw ndax dëgg dëgg dëgg yàlla moo la wax ne nañu julli juróomi julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw yàlla moom ko wax de waaye ne ko maa ngi lay laajaat ci yàlla waaw ndax dëgg dëgg yàlla moo la wax ne nañu woor woor weer wii ci at wu nekk mu ne ko waaw yàlla moom ko wax de waaye ne ko maa ngi lay laajaat ci yàlla ndax dëgg dëgg dëgg yàlla moo la wax ne ngay jël falax ci ñu woomal ci nun di ko delloo ci ñu ñàkk dëgg dëgg est ce que yàlla la ko wax mu ne ko waaw yàlla mu ko wax de mu ne kon nag maa ngi lay seedeel ne gëm naa li nga andi te nag man maay ndawal bi nekk sama gannaaw mbooloo mu bari ñoo ma yónni woon ne naa la laaj laaj yii te dëgërale ko nii sa digganteeg yàlla dal ko wax noonu ne ko man maay junaamum nu saxla ba ci beneen riwaaye ci muslim moom daf caa teg ne waaja summa walla wa qaala wallati baasaka bilxaq laa asiidu alayhinna wala anqusu minhunna fa qaala annabiyu sal allah alayhi wa sallam fa in sadaqa aydukum waa ji bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee daf ne wërañ daal def daal ne géñ naa ci kii la yónni ci dëgg lii nga wax dama ci yokk dara waaye dama ci wàññi dara ba mu dëggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bu waxee dëgg day dana dugg àjjana xoola xoola néew ko nga dem ci waat rek nga bay tool andeeg yooyu yëpp anu fa boo waxee lii rek nga ne boo waxee dëgg lii mu wax liñ dégg fii bu demee jëfe ko mooy an umina billahi ilahan wahidan la sharika lahu ma gëm yàlla ne benn buur la amul kenn ku bokk ak moom nguuram ci il faut ma nangu rek laa sërika bi xam nga nit ñi nañ nangu nañ ne yàllaay buur mais laa sërika bi moom ñu ngi koy wax mais d'accorduñ ci jàpp nañ ne am na sëriñ jàpp nañ ne yàlla dafa am ñu bokk ak moom nguuram gi administration yàlla bi dafa am ñoo ñoo jàpp ne comme ni administration yi mel ami ministre ami député ami conseiller ñu bëri noonu lañ imaginer bopp yàlla bi jàpp nañ ne malaaka yi ci lañ bokk yonent yi ci lañ bokk sëriñ si ci lañu bokk gars yi woote woo yëpp daal ci lañu bokk ba tax na lu ñuy ñaan yàlla sax il faut ñu ne ko yàlla ak sa ansa diw sa benn ansan waaw te foo ñu ñu tuddul ko ko daal wan ko def ci kooka laa abonné te suñu borom tabaraka wa taala amul lenn lu mu wax rek naa ko def ci barke kenn amul parce que barke kooka lu mu rëy rëy réerul yàlla ak yërmande moo gën a màgg loola way ña nga ne yàlla may ma nangam ci sa yërmande may ma nangam ci sa mbaax xeeb nga yërmande xeeb nga mbaaxam nga ne ko may ma nangam ci sa barke bu waay sàngam kon léegi li muy tekki mooy yàlla barke waa jooju nga gën a yaakaar ci ne barke boobu moo lay siiral yàlla mu defal la li may defal mais yàlla daf dafa mel ne daal wóolu woo yërmandeem da koo xaw a jàppe ko soor koo xam ne daal boo def lu wul intervention bootul mbir mi di sotti comme nañ koy xamee fii rek ñi nga xam ne la ñuy liggéey dañ cay soxar te yàlla yii boo wutul koo xam ne ne ko diwanu boole bootul du sotti gaa yi tam nag yàlla loolu lañ koy wax diwanu boole waaw diwanu boole lañ koy wax yàlla nag ma defal naa ba noppi ci barkeem naa nga mooy diw ma moonu boole waaw diwalu boole te même yonente sallallahu alayhi wasallam bi mu koy wax li mu ko defal daf ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum ci yërmande ju la yàlla defal moo tax nga mën a nooy sa diggante ni néew ko fa bi barakatika de néew ko fa bi jaahika de daf ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum yërmande ju bàyyi ko ci yàlla moo tax nga mën a nooy sa diggante nit ñi waaw kon suñu borom tabaraka wa taala lu muy def lu gis nga mu ne ko wa kaana fadlullahi alayka azima yow mboolem loo am rek yaa ngi ko am ci fadlullah te fadlullah nag bu jeex wa ma kaana ataau rabbika maxtuura kon il faut nga wóoloo noonu suñu borom tabaraka wa taala yëg ne nguuram gi kenn bokku ci ñëpp ay jaam lañ boo demee ci malaaka lu mu la wax waxaan taxata rahman waladan subhaana ñu ne malaaka doomi yàlla mu ne bal ibadun ibaad bal li am ibadun ay jaam lañu waaye nag mukramuuna yuy karal mais nag jaam lañ yonent yi mu ne wala xad sabaxat kalimatuna li ibadina al mursalin ibad sama jaam ya nga xam ne dama leen a yónni in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmana abdan abdan laqad ahsaahum wa addahum abdan wa kulluhum kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan leen amul kenn ku nekk ci asamaan wala nga nekk ci suuf lu dul ne booy présenté wu ci kanamu yàlla même yàlla bu ñu koy présenté bu ëllëgee sax duñ tudd ay rasul ak dara am ay ibaat la ñuy tudd ibaat rek booy présenté wu boo taxawee ci kanam abd rek illa ati rahmana abdan mu ne ñoom ñëpp présenté na leen kenn du rëcc te ñoom ñëpp dinañ taxaw ci kanam bu ëllëgee yow ma xiyaam kenn par kenn kulluhum rek la wax atihi yow ma xiyaamati fardan kon il faut pas-pasu l'islam bi da lay laaj nga wéetale suñu borom tabaraka wa taala noonu ci nguuram gi ñooñu jox leen seen i cër tekkiwul leen ne dugal leen ci sañ-sañi suñu borom tabaraka wa taala malaaka lu tedd la suñu borom wax na ko nee na mukramun tagg na leen laa yaatuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun duñu mooy yàlla ci lu mu leen digal lu mu leen digal moom la ñuy def waaye nag nee na wa man yaqul minhum ñoom malaaka inni ilahun min dunihi fa dalika najzihi jahannam wa kadalika najzi zalimin malaaka li muy rëy ku ci bàkk woon ba ne man ilaah laa wala ku mësta mooy waaye nee na bu bëggoon gënam ne ilaah laa man boobaa nee na ma tàbbal ko safar suratul anbiya xala ko yàlla wax malaaka wa man yaqul min hum xala ko kon kooku est ce que laal na ci nguur gi dara naka noonu yonent yi ñoo ci sëcciwaat bu dee ci nit moom cadre nit yonent yi ci gën a mag yonent yooyu suñ borom di ca tànn juróom yoo xam ne ñoom la gën a joxaat cër wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bni maryam wa axasna minhum misaqan xalila juróom yii suñ borom da leen a tànnaat joxaat leen degara yu kawe juróom yooyu nag kenn ku nekk tuddaat na la ci alquran wax jafe-jafe yoo toll woon yoo xam ne soo mënoon dara ci nguur gi bu keroog yow da ngay exécuté sa pouvoir mais keroog mënoo dara yàlla nga dégg mu mu mu mu exécuté tàmbalee ci ibrahim ba ko gaa yi bëggee sànni ca sawara bu xamoon par naan sawara yu fayal wala mu ne gaa yi defal loxoy gaa yi ñu paralysé bu duñ ma mën a sànni mais suñu borom moo décrété moo ne fa qul naa fa qul naa man yàlla yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim nga kon yàlla moo décidé de moo ne ibrahim yow sawara nekkal sedd bu ànd ak jàmm ci ibrahim wa araado bihi kaydan fa jaalnaahum man yàlla maa leen ko def de al axsabin ñu bëggoon koo fexeel ba def leen ñu kat nga jël Moussa moom it ba ko Firawna dàqee ba mu jub géej gi moom it foqul naa ji moo jël ci wat de sawe woon Ibrahima moo ko sawe suñu borom ne foqul naa idris bi asaaka al bahar xoolal sa yet bi nga dóor ci géej gi foqul naa xul naa ji nag mooy sawe gaa yëpp te ba léegi mi ngi fi xul naa ji ba léegi mi ngi fi wallahu yaqulu al haqa wa huwa yahdi sabil nee ma ne ko fabal sa yet bi dóor ci géej gi mu dóor ci géej gi dal di jàll nga jël sayiduna Nuux alayhi salaam ba mu sonnee loo ci nit ñi amul ci ñoom pexe tàngal nañu xolam sonal nañu ko amul ci ay loxoom la taal ne rabbi rabbi laa tasar ala al ard min al kafirina dayyaara innaka in tasarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara suñ borom ne fa najaynaahu wa ahlahu wa man maahu fi lfulki lmasfuur fa najaynaahu wa man maahu fi lfulki lmasfuur yàlla ne maa ko musal moo ñam àndaloon ca gaal ga ko kon keroog suñ borom tabaraka wa taala moo def intervention nga dem ci sayyidina Aysa keroog ba ko yahud ya fas ko fale dugal ko ci poñnar ko waray suñu borom ne inni inni man yàlla mutawaffiika wa raafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladina kafaru wa jaa'ilu alladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmi alqiyama ne ko man yàlla maa lay yëkkati musal la ci ñooñu nga xam ne dañoo weddi yàlla inni la wax néew ko alta bi néew ko yaay yëga tam dana ko inni man yàlla mutawaffiika wa raafi'uka ilayya ilayya nga dem sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xarit Badar moom itam ba mbooloo ma bare yii ko dee bari jullit ñu néew mu tallal loo xam ne di ñaan naan yàlla boo dimbalewul kuréel bu néew bii day bañu gañe leen ci kaw suuf amatu kon ku lay jaamu di la wéetal ci kaw suuf di tallal di ñaan ba kaala ngay wadd abubakar di ko toog naan ko suñu borom nan ko def ak ñaan suñu borom ba muy communiqué mbir mi dafa istastaqisuuna bi rabbikum fastajaaba lakum keroog ba ngeen xeetali ko yàlla yàlla xeetali leen kon la fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon nekk nekk xetliko wuñu ci moom moom it xetliko wu ci dara jay boppam waaye suñu ko delloo mbir ma yàlla xetli leen gis nga kon juróom ñooñu kenn ku ci nekk yàlla wan na la ci biir alquran fu mu ko defal intervention lijjantil ko jafe-jafe bu mu toll woon pour xamal ne seen i daraja rëy nañu lool nag ndax gis nga mu ne wa axasna minhum misaaqan xalisa loolu day naw tagg ah dugal na ci biir yonente yi ba noppi génnewaat la dan que wa min wa min nuux wa ibrahim wa Moussa wa Isa bni Maryam wa axasna minhum misaqan xalisa waaye teew nag seeni daraja foofu la yam duggul ci biir nguur suñu borom tabaraka wa taala naka noonu pas-pas bi dafay laaj an umina bi annahu laysa fi xalqihi man yamliku nafan wala durran li nafsihi bal han li xëyri pas-pasu l'islam bi ngay askanoo askanoo bi nga ci askanoo day laaj nga gëm ne amul kenn ci bindee ji yàlla ji ku yor njariñ lum la mën a jariñ ci coobare boppam wala lor jum la mën a dàqal ci coobare boppam waxuma laa nag mu di ko defal boppam wala mu di ko defal keneen da ngay gëm ne milieu fi yàlla yi kenn ku ci mën a jëriñ boppam wala mu mën koo dàqal lor amul kon nag bu ko war a mën a defal keneen il faut nga fas loolu boo ko deful sax askanu ci lislaam ci wàllu pas-pas du doon askanu gëwér ndax suñu borom moo ne qul huwa alqaahiru fawqa ibaadi yàlla mooy ki nga xam ne moo not moo domine kaw jaamum ñëpp li mu santaane rek mooy mën wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xul xul yi mu koy wax xul neel neel xam nga léegi bu nit sax nee nee nañu ma nee nañ nangam nee nañ mënuma nangam nee nañ ah yaa kooka dalaa yab rek waaye mën nga ko waaye soo ne mën nee mënuma nangam loola moom day wér moo tax mu ne ko waxal ko sa bopp xul waxal yow waxal ne qul la aqulu lakum indi xasaidullah waxal ne duma leen maa yor maa nga tey yàlla la aqulu lakum indi xasaidullah wala alamu alxayba duma leen wax ne xam naa luy xew suba wala aqulu lakum inni malak duma leen wax ne malaaka laa ba duma lekk duma naan duma nelaw duma dox samay soxla parce que nit ñi soo dee woote ci diine buñ la bëggee ñagal dañ lay bëgg a def malaaka nga defee ne nag yow la ñuy naw fekk dañu bëgg a libre ñaari bénéfice dañ ko am ci buñ la buñ la buñ la tiiñalee tiiñal ba teg la ca kaw ba nga ne sukku ñu ne la yow waroo génn waroo liggéey waroo doxi say soxla booy lekk sax wareen su gis koo koy lekk nga defee ñu ne moom tur yàlla lay dunde waaw fooy nelawee kenn waru ko gis yëpp doomu aadama daal bu ko def ñu koy gis ndax yow daal sa mbir wees na foofu gars yi dañ lay xet soo ko defee nag léegi su ko defee ñu daal di mën tudd ne soo waxatee rek ñu ne ak tey moom kay yàlla tax ñu sabar kenn waaye yow kenn mënu laa roy gannaaw wax nañ ba nga damm lool ñun la dul mënu laa mënu laa roy nag waaw yow moom li nga mën kenn mënu gannaaw nangu nga ne yow doo lekk wala booy lekk tuuti ngay lekk doo da koy soxla doo liggéey ba noppi day góorgóorlu soo dee góorgóorlu ñu la moom koy ñaanoonu rek yow kay kenn mënu laa roy kon am nañu rëcc nañ ci kon duutuñu la roy ñaareel ba rëcc nañ ci ci doo leen mën a contourné bu ñu rasee génn ci bët lu leen ñàkk la ñuy nekk bu ñëwee boofaat ne kenn ne la kay mbir yaa ngi dox waaw doo doo ci xam dara mais suñ la bàyyoon nga nekk nit seet bal nag ñu gis la la gis la ci marché bi ngay jaay wala ñu gis la ngay jaxasoog ñoom ci kenn fu nekk lu ñu def nga gis ko nga teg sa bool di lekk nga dajeeg ñoom ci restaurant ñuy lekk ngay lekk ñu xam ne nit nga soo leen nee roy leen mën ñu xam ne war nañ laa mën a roy lu ñuy def itam dañ ci mën a teg sa bët moo tax ñu daan wax ne maali haasa rasul yaakulu taam wa yamsi fil aswaq waaw xoola ci doon wax ci yonent daal yonent boo xam ne day lekk ñam waaw yonent bi du lekk ñam yonent buy dox ci marché xam nga loolu ñu waxoon yonent yi ñoom ñu bañ nag moom la ñu wax rek gars yi léegi ñoom ñu nangu ko ñoom duñ dox ci marché duñ dox ci marché buñ buñu lekk ñu ne dox gi waaw teg ñoom teg rek ñëpp ñëw kii rek sëñ bi sëñ kii déedéet kon kay sëñ bi dafa mën a lekk waaw wala muy seeñu waaw da sëñ bi xam su ko da nga wax ne ci biir taal bi di seeñu bu baax di teg di njëkkan su ko defee ñoo xam ne yow mi koo digal mu xam ne li ngay li ngay digle war a ko mën a def parce que la ñuy def yaa ngi koy def waaw ñu gis na marché nga ngàbb sa tànk di wër di jënd di waxaale di waxaale moo xaale yu métti waaw ñoo xam ne yow mii da ngay dox ci marché yi comme ñëpp yonent yi xeex boobu bu yàgg la xeexu bëgg a ñagal bi ba génne ko ci cadre doomu aadama ba mu tàmbalee ba ji la tàmbalee ba léegi la ma sa tàmbali waaw yonent bi lu tax ñu daan ko daan wax qul innama ana basarun mislukum xam nañ ne basar la kay mais dañ koo dee bëgg a génne ci basar yi dañ koo bëgg a génne ci nit mu leen waxal ne leen yàlla moo ne ko waxal ne leen nit laa waaye teg ca mislukum nag parce que bu ne woon nit laa yem dinañ wax ah nit nga waaye façon nit yi bokkut nit nit bokkut waaw moo tax ma te teg ci nit lu comme comme yéen laa wax li ma taxal ak yéen daal mooy yuuxaa ilayya dañ may waxe te wax yu gi ni ma ko war a toppee ngeen ko war a toppee ñoo ci bokkee in attabiu illa ma yuuxaa ilay dellu ko waxaat ne qul laa amliku li nafsi qul ba tey rek qul yi nekk na ci alquran kenn xamul nu mu toll bu fekkoon ne qul yooyu ku ñuy topp ci diine ku nekk yaa ngi koy wax bu mbooloo mi teewee nga wax leen qul yooyu rek yow libre nga waaw buñ ko jógee di def leen ne yow yow setal nga sa baat yow sa baat ca laay ba yow comme la Isa waxoon rek la aqulu lakum illa ma amartu ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubudullaha rabbi wa rabbakum man day li nga ma digaloon rek laa leen wax yow itam ku ñëw bëgg laa jiiñi wilaaye bëgg laa jiiñi mbir bëgg laa jiiñ nangam barab sàngam suñu oto bu muy bëgg a daaru yaa ko li jël si waaw te yow yëgoo woon ne sax du ko ne ci xot mu wax ko sa karam nga ne teel nañu waaw moom kay dana baax ah kooku yaa ko ci bàyyi yaa da nga ko waroon a yëguma ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo la xet li waaw da nga ko war def am yoo xam dañ koy corrigé ci place ci place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na waajur wax ak moom naan ko macha allah boo tëj moom kay bu soobee yàlla sa soble mais daf ne ko déet dafa fekkoon mu tëdd bi dafa jóg jiitu ne ko yow ajaaltani lillahi niddan da nga maa def nawle bi yàlla waaye dina teg mu ne ko bal macha allah waxda deel wax ne bu soobee yàlla kese xam nga loolu daan na koy réparé jeex na kenn du ko ñu la dee wax ah mais suñ ko dabàyyi woon rek jeex na foofu lay tàmbalee di wéy yooyu nag dëgg la ñu bari ñu baax ñu liñ leen di waxal xëy na waxuñu ko mais nag dañ koy wax ci seen kanam ñu noppi te te nag noppi esrar la nit boo dee dara nga noppi ci ñu tekk mooy da nga ko accordé nga dem ñoo ne ah ñoom daal daanu kat lañu rek ñoom daal moom dëgg mais teewul nga ne ko lii du waxi nit da ko waroon wax ne lii du waxi nit waaw parce que suñ ko dennee koo xam ne moom ko xam diine la seen benn waay di leen wax yu mel noonu dañ ciy xaw a rus su demee nag mu lay jéem a kawe naan ah ñoom dañ ñooy wax yu mel noonu dañoo daanu kat dañu xër rek xër gi ëpp rek waaye xër googu war a ko ca bàyyi dañ ko war a delloo ci wat arrière ko xamal ko ne loolu du ak njub parce que ka bëgg a xam diine ba ñëw ci yow su fa nekkee di wax xereeri diine da nga koy jëllu ci wax tegaat ko ci yoonu jub naka noonu doomu aadama bi kon su gënee ne njariñ ci suñu borom lay bàyyi ko loolu itam yàlla moo ko mën a dàq wa in yamtaska allahu bi durrin fala kaasifa lahu illa hu su la yàlla tegee lor kenn mënu koo dindi kubla moom wa in yuridika bi xayrin su bëggee ci yow jàmm ak xéewal kenn mënu ko fànq fala radda li fadli jërul ñaan lo duggul xalwaat lu nekk nga dugg ca ne damaa bañ ko ma wàcce sama place war damaa bañ li ma am ma tàggoo ak moom li la yàlla jox kenn mënu ko fay jële li la yàlla teg ci lor itam kenn mënu ko teggi ku dul moom loolu soo ko gëmee da ngay daal di mucc ci ak njibar da ngay daal di mucc ci njibar yi nga xam ne dañuy naxaate di la wan ne mën nañu nangam te fekk na mënuñu naka noonu in jibaar ilal islam askanoo ci l'islam daan la la laaj ci wàllu fas-fas ma gëm ne ann al insana mahma balaxat min taqwan lillah wa min taatin lahu aw min sultatin aw jah aw ilmin la yamna'uhu dalika an yakuna abdan min ibadillah ولا يستحق شيئا من الحقوق الا ما احقه له الشرع nga gëm ne nit ki nag ak kum mën a egg ci ragal yàlla parce que nit buñ gisee ku baax rek mu nuru ku baax mel ne ku am ragal yàlla di topp yàlla wala mu am xam-xam dañuy daal di jàpp ne kii léegi dafa am pouvoir ci diine boo xam ne lu ko neex léegi mën naa wax lu ko neex mën naa def yow itam da ngaa war a nekk surgaam boo xam ne lu mu la wax jël du sax laaj ku mu texe mu ne nag doomu aadama bi lu mu mën a am ci cër yooyu du tax mu génn kaadaru nekk jaamu suñu borom tabaraka wa taala du tax itam nag mu am ay droit ay àq ci kaw nit ñi judul ya ko sariya joxo suñu borom ko wax surat ali imran ma kaana li basarin an yutiyahu llahu alkitaba walxukma والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون suñ borom ne ma kaana li basar basar rek la wax amul mel mi ne mu am aq an yuxtiyahu llahu alkitaaba yàlla jox ko téere wal xukma wala mu jox ko baat ak sañ-sañ wal nubuwa wala mu jox ko ak yonent ak yonent wilaaya ak lépp mu ngi suufam mu bëgg a jëfandikoo ne comme maa leen ëpp xam-xam nag wala maa leen ëpp wilaaya nag kon koonoo ibadal li nekk leen samay jàmm mu ne ñu ko lim sañ wax kay mooy koonoo rab yéen nekk leen jaami yàlla nu muy fexee ba nit ñi nekk jaamu yàlla bi maa kuntum tuallimuuna al kitaab jàngal leen téere bi nit ñi buñ la toppee nga bëgg ñu nekk jaami yàlla dina leen jàngal alquran mais soo leen jàngal alquran tey jaam la ñuy nekk parce que duñ ci tey teg mais buñ jàngee alquran ne yow dañ alquran dinañ ko lite xam nga kenn mënta mat ba tiim alquran ma gars yi waa ji nga tiim naan moom fis bi ku mat la gisu benn sikam da nga xamul alquran di corrigé nit ñi rek boo ko xamoon da nga daal di gis sikam yu bari ci biir alquran mais comme xamoo alquran ne kenn jàngalu la ko waxi boppam la lay wax ay mbiri boppam la lay wax mënoo koo corrigé da ngay def ne moo gisu du juum alquran nag mooy corrigé même yonente bi alquran da ko corrigé même yeneen ci bi alquran da ko corrigé voilà voilà voilà ay voilà ngay gis voilà ay big rouge la big rouge la yoo xam ne yàlla day baare voilà voilà voilà sëriñ boo fi xam ne lu mag mag boo andi alquran mu ne ko voilà mu corrigé waaw léegi alquran yonente bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax loolu wala tatrujil benn aaya tegalal na ko ci ñetti voilà wala tatrujil la siina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhu turidu sirata alhayati dunya wala tuti man aqfalna qalbahu an zikrina wa taba hawa wa kana amruhu furuta kallaa yu benn bu ci leen naafiya la du naafiya ñu jàng naxu xam nañ ko day tere bul def lay wax laa daf ne ko bul dàq ñi nga xam ne ñàkk nañ personnalité adduna mais yàlla rek lañ gëm bu leen dàq ak sa jotaay waaw ñoom bilaa rek ñoom Zuhayb boog ñooñu nga xam ne seen i mbubb du rafet mu ne ko bu leen jëlee ci sa jotaay léegi mu bàyyi leen jotaay bi mu ne ko itam bu leen du mooy xool leen dee leen xool ba da leen bàyyoon jotaay bi mais buy waxal personnalité yi lay waxal xam nga nga toog jotaay boo xam ne yow yaay ñëwoon di ca bokk bokk lu lépp nii ne kenn du la ci boole fu nga def suñu suñu kenn du la ci boole waaw kay kay wax moom borom personnalité yi lay xool ñoom lay seedal waaye yow doo ci bokk yonent bi leen ne ko dee seedal ñoom bilal dee leen boole ci wax ji dee leen boole bu daal xam nga gis nga ko bilal wala dégg nga ko yow bilal wala adu ay naaka an hum yaa ne ko yow turidu zinatal xayaati dunia nga yegg seen mbubb yu rafet yi moo tax booy wax ñoom ngay seedal ah xoolal ci wax rek aay bi boo ko jëloon tey natt ko ci liy dox fi mu ne tey ah boo ko defoon tey ci liy dox ci kër yi ñu tudde kër yi diine tey aaya bi xam nga nee na ko moom bu leen dàq moom moom dañ leen di dàq mu bàyyi leen mu toog mu ne ko dee leen xool dee leen xool wala taxlu ay naaka anhum te nag wala tuti man axfalna qalbahu an zikrina wattabaha hawa bul toppati bul dégloo ci bul joxe ci cër koo xam ne ab xolam dafa sàggan ba tudd yàlla nekku ci te boo tee ne fi mu ne ñi ñuy gën a recevoir gën leen a fonk mooy ñi ñi nga xam ne xafala qalbuhum an dicrillah am naa ñi nga xam ne fu ñu toll moom ñi ngay tudd yàlla ñi ngay yàkkam ci déglu ñu wax am masala bañ jëfandikoo ñooñu moom bala ñuy gisee dana yàgg lool wala bu ñu gisee sax duñ leen yàq kon alquranul karim jooju ngay gëm ne moom mooy nattukaay bi kon ku bëgg a teg aw nit ci yoon da nga leen di jàngal alquran da nga leen di jàngal alquran suñu borom tabaraka wa taala dana wax ne qul innama ana basarum mitlukum yuuxa ilay annama ilahukum ilahun waxid fastaqimu ilayhi wastaxfiru mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci suratu fëtti nag waxal ba tey waxal ko sa bopp waxal ne man mii gis nga yu yu jëm ci yi koy wàcc yépp yoo xam ne day yemalewaat darajaam yépp xul na ko ci wax gis nga yépp xul na ko ci wax pour li naan nekk li ci làmmiñu borom la daqe waxal ne nit laa comme yéen ci nite da ngeen di xiif may xiif ngeen di mar may mar ngeen di sonn may sonn ngeen di ami soxla ma koy am may xeex ñi di ma gane yooyu yëpp nga xam ne day gaar doomu aadama daf koy gaar mu ne nag waaye nag dañ may wax yi waaye nag benn borom ngeen am muy suñu borom fastaqimu ilayhi ilayhi léewul ilayhi de képp kuy woote ci biir da ngaa war a taxaw fastaqimu ilayhi avance nga war di wax nit ñi avance fastaqimu ilayhi fastaqimu da ngeen jéggul ko de seeni bakkan naka noonu pas-pasu l'islam bu wér bi dana la laaj yow mi askanoo ci l'islam te askanoo gi nga bëgg mu wér seetal ba xam pas-pas bi dana laaj nga gëm ne kullu insaanin mas'ulun an amalihi amaama rabbi loolu itam da koy gëm gëmal ne kenn nit ku nekk ni la yàlla bindee woon ci loo xam ne sa digganteeg moom rek la noonee ngay taxawaate ci kanamam yow rek mu laaj la li nga doon jëf du ko laaj kenn li nga doon jëf yow doo ko laaj sa baay du ko laaj say doom du ko laaj sa soxna du ko laaj sa sëriñ du ko laaj sa kenn yow mi ko jëfoon yow la koy laaj loolu wax suratu rahman fa yawma idin laa yusalu an danbihi insun wala jaan yowmal xiyaam sa bàkkaar kenn du ko laaj nit kenn du ko laaj jinne yow mi ko jëfal yow lañ koy laaj loolu nit ki da ko bàyyi xel mais def lu la neex rek nga ne man ki ma àndal te ànd ak ko ma àndal lu la neex laaj wala lu la neex def tax yow tiitoo dara ñu ah ñu ne ki ñu àndal nun lu nu neex def xanaa gars yi kay waaye ñun ñu ngi ki ñu àndal defal na lépp loola bu ëllëgee kookee li suñu borom tabaraka wa taala wax avocat avocat balaa mën a nekk sa avocat day fekk amul projet nekkul accusé yowmal xiyaam ñëpp accusé lañu li kulli mri'in minhum yawma idin saxnun yuxni yowmal xel ñëpp accusé lañu bala ngaa mën a dossier kenn di wax ko naan diw lay defar fekk ñu accusé la yow dañ la accusé gisee ko ñëpp ay accusé lañu ay accusé rek du ñëw di la defar nag suñu borom moo ko wax li kulli mri'in minhum yawma idin saxnun yuxnihi dossier bu ko doon sëkk mi ngeen moom waaw ay ab accusé rek nga ñu accusé la yaa ngi nga dem di benn waay bu dee ca xasatu ijtihaad ba kañ ko téye ci biir jiri ba nga naan kee mooy sama avocat bon ku wóorul kooku moom bu ma nee mucc ci yow sax ne laa yow surtout naa sax yow nag yow ngir ba yaa ma ko defoon wala yaa ma ko xool waaw pour gis la sax ne waa waajaa ngi sotti loolu loolu moom moo koy gënal moom waaw moo tax suñu borom leeral ko istabara alladina tubiu min alladina tabau wa raaw al azaba wa taqatta bihim al asbab bu keroogee ñooñu nga doon wax sama avocat lañ ñoo lañ njëkk bi ñu latee ne suma waa ji jotiwu maag moom dara dégg na ci mbiram tabara alladina tubiu la wax ñiñ doon topp nee na ñooy bàyyi ñeneen doon topp ñiñ doon topp ñooy bàyyi ñi leen doon topp borom bi ne yow na taati yow ma xam nga yowmal xiyaam nag jullit ñu bari nee na gëm leen yowmal xiyaam mais ku ne da nga am sa yowmal xiyaamu bopp rabb sax yowmal xiyaam imagine imagine bu boobaa diw nangam nee na ñi ay sandal ki la ñu yor nit ñi nee na ñi ay radu la ñu yor di radu nit ñi nee na kii nangam nangam loolu bu la neexee sax yowmal xiyaam bi nga imagine mais yowmal xiyaam bi walaabal mooy yow ma yi yàlla wax ci biir alquran yow ma xew-xew bépp boo dee dana am yow ma xiyam te gisoo ko ci biir alquran mu ànd ak benn yow ma xewu ba du booba bis yow beneen yow ma xiyam ngay wax waaw beneen yow ma xiyam ngay wax xam nga bu la neexee rek wax sa beneen yow ma xiyam waaw ina bu nee Dakar bu la neexee rabbu sa Dakar ak bopp ne ma sama Dakar daa am ay néegi ñax ay gaj ji ay gaynde ay nangam nangam bu waxee nga ne sax Dakar du seenu Dakar yow itam bu neex nga rabbu sa yow ma xiyamu bopp mais yow ma xiyam bi alquran di wax moom yow ma yi moonu koy wax nee nag yow ma keroog ñu ne ah mu ne ta fii dana dikk kullu nafsin kullu leen ñëpp ci biir bakkan bu nekk dana ñëw tujaadilu an nafsiha di laajil boppam waaw bakkan bu nekk nee na mooy taxaw bu yom a xiyamee di laajil boppam ginnaaw sa dossier nag boo xam ne ne yaa koy défendre baye boo xam nga jéem a seet jéem ko wala bala léegi fii boo jàppee ne keneen a koy défendre rek loo neex rek def ci loo neex rek def ci yaa nga ca carte ga yaa nga ca sàngara sa yaa nga ca riba ba yaa nga ca moy ga ku ñu waxee rek nga ne ki nga àndal moom mën naa défendre dossier bu nekk waaye même bu jëloon ne moo koy défendre du ko mën a défendre suñu borom loolu la wax wa in tadoo mas'alatun ila ximliha laa yuxmal minhu shay walaw kaana saqufa nee na boo gisoon sax ku daanu ci ku ne joxaale leen ma dossier diw ma gàdduwaale ko nee na kenn du ko ko def waaw wa in tadoo mas'alatun ku di dana di bakkaar mu ne jox leen ma comme man am naay bakkaar ma ne jox leen ma bakkaar gaa yi ma far ko yóbbaale muy benn sawar rek ah nee na laa yuxmal minhu shay donte day bàyyam wala muy doomam walaw kaana saqufa kon loolu itam pas-pas la boo xam ne ku bëgg sa askanu ci lislaam wér da nga koy nangu li ma waxoon tànk nag bu wuuteeg la nga doon loolu lii may wax wala mu wuuteeg ña la yar lañ la yare woon nga de waa ji day wax rek man loola lay jàpp lii alquran la ay aaya la jëlal aaya yi dem ko mu firi la ko neneen ba xam ne la firi leneen lu dul loolu mu nit waaw aaya alquran moom la muy firi loola lay firi ci aaya yoo xam ne mos ka maat la kenn mënu ko tànn yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin maa amilat wa hum laa yuzlamun benn bakkan bu nekk dana jot la nga xam ne moom la fa fekkoon ba tey pas-pas bi dana laaj ñu gëm ne amul wenn yoon nag wu ne ci mën a jaare pour xam diine ju wér lu dul nga jaare ko ci ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi woon loolu itam il faut nit ki gëm ko parce que soo ko gëmul sa diine du yem mukk jamono bu nekk ñu génne la lu bees parce que boo gëmee ne am na ñoo xam ne dañuy dem jàkkaarloog lawhul mahfuz ñëw di indiwaat leneen lu bees wala dañuy jéem dara di ko ci boole wala ñu naan dañ ñoo feeñu di ko ci boole mais kon mbir mi kañ lay yem moo tax lislaam soo dee wër monde islamique bi loolee da nga ko gis fi mu fii rek mais soo demoon Égypte wala nga dem Maroc wala nga dem feneen façon bu nekk da nga ko gis lu ñu boole ci diine ji loo xam ne mosoo ko sax xam même goxi Sénégal yi rek gox boo dem da nga fa dégg bidaa bu formé yoo xam ne ba nga juddoo ba léegi yow mosoo ko dégg ñu di ko def ñee nga def ay àllarbay kare daa yi mag dég ñuy sow loolu de julli say faat mbooloo yooyu tajaloo di naan dañuy def julli say faat ah loolu fan lañ fan lañ fan lañ ko saxal ci sariya doo dem ci benn téere bu jàngale fépp mu naan la baabu salaatil faay mais yooyu yëpp ay nit a koy keer yëpp yu bëgg a gën a mën a ay not ay nit parce que nit ñi il faut nga am loo leen téye wala loo leen am fii amul feneen waaw fii dafa am ay privilège yi fi nekk yoo xam ne yéen ñi fi bokk war ngeen a sant yàlla léeg-léeg nga dégg ñu di wax yéen ñi yàlla boole ci kër gi sant leen yàlla waaw parce que li fi am amul feneen ak xalaatoon la fa am l'islam moom universel la li fi am fépp la am l'islam li fi am bu dee lu wér ci l'islam soo demee Inde war na faa ne soo demee Iran war na faa ne soo demee Arabie Saoudite war na faa ne te universel mooy alquran mais fekkee dafa am particularité boo xam ne léegi fii rek rek rek la am comme du yàlla wàcce woon waaw comme du yàlla wàcce woon boo gis ñu naan al jamaa ahlu sunna wal jamaa jamaa boobu li ci jublu mooy li nga xam ne rek ñëpp a ko bokk xam nga noddu ñëpp a ko bokk noddu kon mbirum jamaa la julli gi ñëpp a ko bokk jàng alxuraan gi ñëpp a ko bokk koor gi gis nga fi ne ñëpp koy woorandoo monde islam yi ñëpp a ngi woorandoo fi ne parce que mbir moom ko moom ban tarixaa ko moom ban sëriñ ko moom yooyu nga xam ne nag te universel ñëpp a ko bokk loolu mooy diwér mais loo ci gis nga xam ne moom mbar fegg la koo xam ne dañ ne moom ñoom rek moom ñoo ko moom ñoo ko jagoo te itam ay sat lañ la koy joxe ñu gërëm lañ ko ñooñu bàyyee leen ko seen mbirëb seen mbirëb yàlla moom li mu joxe lu ubbiku leen lu leer la ci alquran karim la ko def alquran yombal na ko ba gis nga situation bi ma doon wax ci alquran yàlla ni mu ko defee ci mokk gi moom la ko defee même ci kaamil yi xoola alquran moo gën ci téere yi mais moo gën a yomb ah xam nga alquran bu doon jël waloonam dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal gépp dañuy cotiser pour am benn kaamil Sénégal gépp cotiser doo ko mën a am dëgg kaamil wala sax duñ ko mën a am kon kon pays yu avancé yu mel ne Amérique ak yu am am yi xaalis yoo war a mën a am kaamil mais xoolal ni ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala yokkal dañ la koy may sax gars yi sax ñoo koy jaayat waaye yu wasaw ma jaamin wala yu baax loolu la ci bind gars yi ñoom ñoo ñoo koy jaayat waaw waaw waaye itam nag lañ koy jaayee du feer kon suñu borom tabaraka wa taala moo ko yombal pour ñëpp mën cee jot ku ko jot itam nga mën koo jàng boo ko jàngee jëfewul nga mën koo xam su ko defee daal di mën a tegu ci yoon naka noonu su ne xam-xam bu mu am te xam-xam ba jëfewu ko nit ki suñu ko dee màggal ngir xam-xam xam-xam baa tax xam-xam di la ñuy màggal te xam-xam ba ñuy màggal mooy ba borom di jëfi waaw kooku bu fekkee nag yaa ngi koy jox beneen considération lu mooy ne rek am na xam-xam waaye ñu gis ko mu gën a tàccoo ñëpp nga di ko màggal ngir xam nga mu xam kese loola itam bu boobaa du pas-pas bu wér bu fekkee da ngay jàppale nit mën na gën nit ci aw laaj ñu muy làkk wala ci couleur der bu mu yor wala ci barab bu mu dëkk yii yëpp nga jàppale nit mën na ciy gën nit askanu gi ci lislaam ba tey def na wérut suñu borom tabaraka wa taala wax nañu rek benn nattukaay bi ñuy gën inna akramakum inda allahi atqaakum ki nga xam ne moo gën a tedd ci yéen fa yàlla nag la wax fa yàlla mais doomu aadama yi moom ñi gën a tedd ci moom bari na am na ñoo xam ne jàpp nañ ni ñoo leen gën a tedd ngir judd ba ñu judd ñii ñoo gën a tedd ngir alal ja ñu am ñii ñoo gën a tedd ngir pouvoir ba ñu yor daraja ja ñu yor moo xam buur lañu wala ministre lañu wala leneen lañu ñii ñoo gën a tedd ngir lañu yaakaar ne moom lañu xam waaye suñu borom ne ne ki gën a tedd mooy ki gën a ragal suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla dafa maanu comme doomu aadama yi bi ñuy départ ñoom ñëpp a départ andoo woon bu ci amee nag ñoo xam ne da leen defi kóor da leen defal kóor yoo xam ne moo tax ñu raw ñeneen ñi ci def kon kañ raw day mën a wax ne man kii fas bi ñu ko jox ni muy dawee man kenn joxuma fas moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñëpp a bokk nu ñu ñëwee fas yi moom nit ki mooy wutal boppam aw fas kon te fekkoon ne ak jub gën ciy gën kon yow dañ laa préparé aw fas yow bi nga daan judd nga war a fasu judd bi nga judd keneen mënu koo am keneen mënu ko am parce que nit ki mën ta judduwaat te doomu aadama dafa war la muy rawee morom ma doon loo xam ne moo ca def effort ma ki ñu raw itam doon loo xam ne càgganteeram la te bu góorgóorlu war ko mën a dabal mais buñ la rawee ci loo xam ne du càggante te itam du loo mën a rectifier waat kon loola man te buñ ne kii moo la gën nga ne lu mu la gëne ñu ne la daf laa jot ndey ak bàyyi kon ñoom nooy def kon ba ba ba duut la de kon faat na ba ilaa yow na xiyaamati mu lay gën faw kon saale oj yàlla waxoon kon lu muy jariñati kooku lay course teeg moom ki nga xam ne gën na la kaw lu ngeen di course ti te yàlla ne woon course la ñaar moom course la course kay da ngay toog buñ bàyyi woon koo xam ne course bi téeméeri mètre la ñu bàyyi ko mu dox juróom fukki mètre ba taxaw yam ñu tàmbale defaat la def daal di sufle ne la course la kële ah nooy course téeméeri mètre la bàyyi nañ ko mu daw juróom fukki yëpp yow ñu téye la daw la rek course dé moom kay dañ leen téye ci départ bi yéen ñëpp moo tax kon askan wi su fekkee ne waa ji dafa am askan woo xam ne ci la lay génne gën na la ci ba pare ñu doog ne rawante leen kon moo lay raw su fekkente ne itam alal lañ bëgg a def nattukaay ba alal itam du nattukaayu gëneen ndax alal niñ ko mën a amee bari na alal niñ ko mën a amee ci yoon woo xam ne du jaar ci yoon wa yàlla di digle lu bari na te même bu ko nit ko amoon ci ni ko yàlla digle itam taxul ne moo gën ñi ko amut ndax alal du lu ñuy présenté yow ma xiyam yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim moo tax nattukaayu ngëneel bi nga xam ne ku ne ci gën moo ca góorgóorlu kenn mënu la koo jaay fi mu ne mënoo bëgg bëgg bëgg sa doom ba ma bàyyee ko ragal yàlla gi koy def il faut moo di def effort boppam mënoo bëgg bëgg nit ba jaay ko ko ragal yàlla mënoo ko bëgg bëgg ba may ko ko ragal yàlla nit ki moo koy fàggul boppam ci def ay ndigal watali ko ay tere bari waa nañu doon lool seen kër baay doon nañ tabax ya doon nañ mbooloo ma doon nañ yéere ya waaye nag ragal yàlla ga kooku moom mënuñu ko doon kooku moom yaa koy def effort bopp lay doon te góorgóorlu bopp lay doon moo tax nag suñu borom def ko muy benn nattukaay boo xam ne ci la doomu aadama bi raw moroomam soo gëmee ne nag doomu aadama mën naa gën moroom ma ci lu dul ak ragal yàlla loola boobaa pas-pas bi nga yor du pas-pas bu wér bu ñuy askanoo ci biir islam naka noonu itam pas-pasu l'islam bu wér bi daf lay laaj nga gëm ne ku dul yonente yi nekkoo ne dañu laa musal ci bakkaar loo nekk nekk nit ku baax ak loo tedd tedd mën ngaa def bakkaar mën ngaa juum say wax kenn wur koo nangu di ko jël lu dul gannaaw buñ ko gaaralee ci miisaanu sara ci balance l'islam bu alquran ak sunna ba wax ja dëppoo moom ñu doog ko jël ak nag nit ki fu mu mën a toll ci ak mbaax nag loolu soo pasee ne jiw sàngam bu ñu la jiw ko rek nga ne ah kon de kooku kenn wul càkke dara lu muy jëfe kenn du laaj nu mu mel ci alquran wala nu mu mel ci sunna nga fas loolu ci kooku jàpp ne moom du juum wala dafa xam lépp diine pas-pas boobu soo ko yoree ba tey pas-pasu lislaam bu wér biñ mën a askanu ci lislaam bu wér pas-pas boobu ba tey matala ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne laa taata li maxluqin fi masiyati al xaaliq kenn du topp mbindeef ci loo xam ne dañ ci mooy yàlla te nit ki ne bu la waxee te li ma la wax xamoo fu mu tege mën naa am nga def ko fekk mu juyoo ak li yàlla digle woon fekk mu juyoo ak la yàlla digle woon moo tax nit ki lu mu la digal wala lu mu la tere bala nga koy jëfe wala nga koy baat da ngay laaj ña xam ba xam loolu lu dëppoog alquran la am ne lu dëppoog sunna la am ne nga doog a jëfandikoo lool ba tey bokk na ca pas-pas bi nga gëm ne al an umina bi anna al muslim la tasqutu anhu at takalif al sharia maadaama yàqi nga gëm ne itam nag ab julit li téeg mi ngi ànd ak ko xelam li ko yàlla santoon ci lislaam du ko wàcc benn yoon te da ngay ku jaamoo jaamu yàlla ba ñaar kooku def de moom am na ngërëmal yàlla egg na ci yàlla suñ borom def ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jaamul sa borom ba yaqin dikkal la yaqin boobu nag ñenn ñi moom la ñuy firee ak wóolu ma ne wóolu ne am nga ngërëmal suñu borom loolu mënu ko am fii ci àdduna ma mënu ko fi am yaqin boobu dee lay firi te la ko gën a leeral man ca suratu mu dakkir wa kunna naxuudu maa alqaidin wa kunna nukadibu bi yowmi ddin hatta ataana al yaqin xam nga ñooñu ñu baaxul nañu lu tax ñuy am yaqin ñoom ñooñee fekkoon ne yaqin garab la lu tax gaa yooyee di ko am gaa yi nga xam ne yukadibuuna bi yowmi ddin bu noppi am yaqin ah kon soo bëggee ne waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin yaqin boobu garab la bu nit di egg kon lu tax ñuy am ko kon moo la xam ne yaqin mawt la yaqin boobu dee lay firi jaamul yàlla ba dee ba dee parce que yaqin boobu suñ ko doon am ba retalee tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ na ko inna fataxna laka fatxana li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dembika wa ma taaxar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima kooku buñ doon am yaqin buy tax a retraité dootoo jaamu yàlla kon mënoon naa daal toog ne ah gars yi kat dee nañ loolu di julli ak kii waaye man wàcc naa waaw waaye gis nga ko gis nga ko bindul ci jaamu yàlla ba ni nga xamante ne noonu la wujjee suñu borom tabaraka wa taala kon soo gëmee ne nit ki dana egg fenn ci diine koo xam ne day tax yi jaamu yàlla yi suñu borom tabaraka wa taala tege woon wàcc ko nga fas loolu wala am ko ko fas nga nangul ko loola jàpp ne li muy def laabal la limaale ko ci biir jullit ñi ba léegi te nanguwutul daray lislaam kon yow sa askan ci lislaam ci fas-fas ñurut waxuma laa nag nit ki di ko defal boppam waaye dem sax nag ba di ko defal ay nit te ñu bëri ñoo xam ne dugg ñu jaamu yàlla yoo xam ne dañuy dem ci ku ñëwee yàlla ci koor dem ci moom rek ñu jël ndab jox leen ñu lekk fa la ñuy doxee dund ñu woorati loolu bari na ci réew mi lool waaw mais daal jox rek koo xam ne kon ñëwee yàlla nga dem ci moom ne damaa war na am waaye lekk waay mu indi sax nga yem ci gis booba waaye fa lay doxee ne des ca dundam moom dul woor njabootam dul ñu woorati loolu nga fi ne gañ te ba noppi ne muy wax ne ci lislaam la ne yow ñun jullit ñi dem nga nangul ko ak nekkam ci lislaam di ko may jabar di takk ay doomam di jaalanteeg moom di demanteeg moom ak a dëkk ah te buñ jàpp ne kéefar yàlla dana nga génn ci kéefar waaye dana nga génn ci ñi ci borom kéefar yi ñaar yëpp lañ santaane ibrahima daf ne inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duunillah bokkaale soo ko bëggee ba ñooñ bokkaale ngi njëkk a baax doog a baax bokkaale ba pare inna buraa'u minkum la jiital doog ne wa mimma ta'buduuna min duunillah bàyyi naa leen yéen ñii di bokkaale doo ko bàyyi la leen li ngeen di jaamu tam yàlla am naa soo àndul ak moom ci li muy jaamu waaye nag moom ci boppam moom bàyyi woo ko ba tey yaa ngi ci biir mbir yaa ngi ci biir de te loolu moom ñun ñëpp moom suñu problème la ma ne al wala wal bara ku jàpp ak ku ñu bàyyi ba léegi defal guñ ko ci pour tourne l'islam ak bokkay tax ñu jàpp nit ak xaritooy tax ñu jàpp nit dimbalu la nit dimbali mooy tax ñu jàpp nit dëkkandoo mooy tax ñu jàpp nit waaye jàpp nit ngir l'islam bu bàyyee l'islam ñu bàyyi ko ba léegi ñun loolu dundaguñ ko te suñu borom da ne woon laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasula walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruuhin min suñu borom nee na doo fekk mukk nit koo xam ne gëm na yàlla te ngëm ngay dëgg muy toppati ku wàcc santaane suñu borom tabaraka wa taala nga ne ko waaw bu dee mbokkam nag mu ne walaw kaanu aabaahum laa wax doonte bàyyama aw ixwaanahum o wala ay mbokkam lañ aw asiratum wala ci famille la bokk mu ne ñooñu mel ku noonu nag nga xam ne ku bàyyi jubug suñu borom ni man laa baax nee na ñooñu la yàlla marqué ngëm ci seen biir xol katabat fii qulubihim al iman bu dul ñooñu moom al iman bi lisaanihim rek kon al wala wal bara koy àndal ak koy bàyyi nga di ko teg ci l'islam dafay principe bu dëgër ci biir l'islam waaye boobu ñu wàccoon ci saxaaba boo xam ne ci xarit Badar moo rey baayam baayam bàyyi di ko jub la xëy fekkaanam bàyyam rey waaw te bàyyi bi da doon xaw a làqu ci moom jàpp ne xanaa bu jëmee ci doomam daal xanaa da koy jàpp prison wala mu def ko leen waaye du ko rey bi xale bi tàngee ba tàng moom mu busee fa doomam féete ci saxaaba yi bu mu féete boobu mu egg rek mu dóor ko jël suñ borom wàcce aay di leen laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah doo leen fekk ñuy soppante ku noonu yàlla noonu ab yonentam mu ne ñooñu nag ñooñu leen ngëm yàlla barke ci seen biir ko kon loolu itam il faut ñu bàyyi waale ko xel gis ne képp koo xam ne dafa jàpp ne dafa egg ci koo xam ne moom mën naa bañ a tey jaamu yàlla te ñu bëri sax fañ koy teg mooy mag ñu bëri da ngay gis ne du ñu góorgóorlu ci diine soo waxee ñu dama dama liggéeyal ku baax liggéeyal ku baax ndéeg nga liggéeyal yàlla ñoo wër sa retraité rawatina yow ma nga xam ne yow ku baax ki day wax wóoragu la sax ku baax la nit wóoragu la parce que ila maxfira ja est ce que leer la leen dossier ñëpp yàlla jéggal na ko tamponné na ko tamponné maxfira dossier am na kase maxfira ah comme wóoragu la ko rek te loola fa muy leere mooy suñu demee suñu borom tabaraka wa taala foofu la mbir yi leere te kooku même su ko amoon soo ko léegi yéene ndax nee na même malaaka ñi nga xam ne moom amul bakkaar yàlla moo ko wax ku la waxoon ne jaamul malaaka nee na delloo na la ci kéefar wala yamurukum an tatafitul malaaikata wan nabiyiina wala malaaka ak yore yàlla musal na ko ci bakkaar malaaka yi bakkaar te li ñu baax baax boo leen doon jaamu suñu borom nee na ku la digal nga jaamu ñooñu li ñuy baax baax dellu na ci kéefar bu ki dañuy jàpp ne ku baax mënees na ko jaam soo wax ñu ne kooku loo ko defal yàlla nga ko defal mais kenn ko defal yàlla directement baax